ak yitte bu ñu woo seen wàllu diine ci fréquenté bi ñu fréquenté réseaux sociaux yi loolu danga koy saluer day nekk loo xam ne da ngay ci sant yàlla pare da nga leen ci encouragé ndax ñu bëri si ñoom ñu ngi ci yàqu-yàqu bu jéggi dayoo loo ci gis ci ay nit ak ay jeunes ñu ciy baaxee rek mën nga ko multiplier par dis ne ña nga cee yàqu wala sax lu ko ëpp yàqu bu jéggi dayoo boo xam ne réseaux sociaux yi mu ngi koy def bu ci dara nekkul woon lu dul yàqal leen seen yenn capacité yu leen yàlla jox ak yenn faculté yu leen yàlla jox ak temps bi nga xamante ni ñu ngi ko fay passé muy dem noonu ci ngelaw loolu rek doyoon na waaye leen ci gën a garaw mooy seen jikko yi nga xam ne daf koy yàq bu ma waxee capacité yi mooy affecté bi nga xamante ni utiliser bi ñuy utiliser réseaux sociaux yi de manière abusive mooy di ko jëfandikoo ci anam bu jéggi dayoo dina am lu mu koy def ci ñoom di ko bàyyi ci ñoom ci liñ tuddee autisme tey ni mu bëree léegi ci ndaw ñi ndax ni nga xam ne noonu la écran yi di impacté ci ñoom ak seen croissance surtout croissance neurologique am lu bari loo xam daf koy def ci jeexital ko ci loolu te léeg-léeg ñu si doon bàyyiloo xel ñu bëri ci waajur yi ci ndaw ñi xale yi yenn blocage yoo xamante ne loolu daf koy def ci ñoom Euh, ak autisme bi ma doon wax sànq désociabiliser leen ba nga xamante ni dangay gis ne ni ñu war a jaxasoog société bi jaxasoo koog seen i mbokk jaxasoo koog nit ñi xamante ak ñoom li ci bëri du am ndax réseaux sociaux yi day am tendance di leen couper ci li nga xamante ni mooy société bi ak li nga xam ne mooy la vie réelle ñenn ñi nga xam ne sax ñoo accro ci ay jeux vidéo ak yooyu ñoo ñu dugg ci beneen benn vie virtuelle boo xam ne seen dund yëpp ci loolu lañ koy jeexal mu beneen xeetu dund boo xam ne day dem ba dañ koy jaawaleeg dund bi am dëgg-dëgg-dëgg loolu nekk ay loraange yoo xam ne yu jéggi dayoo la loolu luy jeexital la ci ñoom di leen lor bu baax di leen gaañ beneen bi ci des mooy waxtu bi nga xam ni mënoon nañ ko jël tàggatu ci ci lu bari ci seenu ndaw bu ñu màggee mu jariñ leen ñu jël ko lépp passé ko ci loolu ñenn ñi seen njàng mën caa yàqu li ñu tuddee échec scolaire bokk na ci tey lu koy gën a waral bokkaat na ci mooy léeg-léeg benn dépendance bi nga xam ni ndaw ñi am nañ ko trop ci li ñu tuddee nouvelle technologie yi ci ni ñu koy jëfandikoo ba nga xam ni dañuy am li ñu tuddee problème attentionnel problème attentionnel mooy dañuy dem ba seen xel yi day mujj mel ne lu sonn ba pour jël attention ndaw li focaliser wuloo ko ci lenn lu yàgg mu toog déglu ko concentré wu ci day dem ba dootul mën a nekk te loolu koy indi écran yi ñuy sëgg moo koy indi moo tax léeg-léeg pour capter seen attention du yomb leneen li ci des li ma mujjee woon wax mooy jëkko yi moy mauvaise fréquentation yi jikko yi nga xamanteni jikko ndaw ñi ci lim leen di tàmmal di leen ko xamal ci ñaawteef ak lu bon kenn xamul nu mu toll te loolu suñ société bi boo gisee ñi nga xamante ni noonu lay doxee di nga gis ne loolu am na ci wàll bu rëy rëy rëy dem dindi ci ndaw ñi li nga xamante ni mooy kersa bi nga xam ne moo daan sàmm seeni jikko ak jomb am lu nit ki di rus ci boppam loolu da nga gis ne daf koy dindi ci ñoom fa ida lam tastaxi fasna ma chita loolu moom moom la ñuy dund